waxtu wasaare news ak lii di Dakar midi tey ñu nekk fii si Cambérène Cambérène nag ku ko tudd euh, appel bi. ñu nekk si quarante trois cent quarante troisième édition bi nga xam ne ñetti édition amul Covid 19 bi waraloon ko tey ñu nekk fii si si appel bi na jox kii si suñu papa Baye Abdoulaye Thiaw Laye mu sànni si ay kàddu. papa ñu lay ziar. di leen ndokkeel ci bis bu tër tedd bii. di ziar àddina bi yëpp di ziar sunu xalifa ñi Pape Doudou Mokhtar Laye yàlla bàyyi ko fi ak njabootu Baye Laye gi di ziar sëñ Mountakha Bachir ak njabootu sëriñ Cheikhul Khadim di ziar sëriñ Babacar Sy Mbaye Sy Mansour yàlla bàyyi ko fi di ñaar xalif généraux yëpp di wax addina bi laay laay laay moom du Mokhtar laay laay. amiin tey jii ñuy fête lii di cent quarante-troisième édition euh, bu appel bu Seydina Limamou Laye tey lan ban kàddu nga si am ginnaaw bi nga xamee trois éditions amul. Euh, di di sant yàlla mi ko xewalaat parce que defe naa ñaari at romb na fi amul ngir tawat gu fi amoon yàlla mi dogal ci dogalam mu mu mu xewal ko tey kon ñu ngi ko ciy sant waaye di ci fàttaliku sunu jàmbaar ji ba Abdoulaye Thiaw lu wéetal suñuy xol ku geesu gis appel gisoo si Abdoulaye sa xol du neex ñi fi nekk mat nañ gi sëkk nag waaye moom dafa doon lenn ci ñun fu diine bay la ji egg tey moo ko fa yeggal kon ñu ngi ko ciy ndokkeel bu baax te ko ñaanal fu mu tëdd si àjjana yàlla yokk leeram di ñaanal umma islam bi yëpp ku dégg appel ci turu tubaab mooy uy si leen bisub tey bii la yu ko aaji boo daay jëm suba ci yor-yor lan la wax yàlla ma yónni ci kan la ma yónni ci nit ak jinne yaa maasalal jinne inni rasulillah ilaykum yàlla moom yéen ci nit ak jinne muy aaji boo daay laay oote boobu nag moom la ñu uyu si di ñaan yàlla mi yor xéewaleeg teraanga yi yàlla yàlla may nu ci teraanga yàlla may nu ci xéewal ba lépp lu ci waay ñaan yàlla may na ko ci barke sangama Seydina Imam Laye Mahdi jërëjëf. waaw ah. tey jii appel bi tombé euh, li nga xam ne jamono dafa am ay yëngute guerre bi nga xam ne Ukraine ak euh, lii di ñoo ko sekk tey jii lan lan lan nga si wax. Euh, seytaane yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon na jamono gi ñëw nit ñu weex yi daan lekkante ba jeex yonent bee ko waxoon lu tax mbon mbon gi ñuy def jullit ñi lu tax yàq bi ñuy def li tax yàqalante bi ñuy def te jullit ñi dañoo war a bokk ndey bokk ba ay soppante bëggante yàlla tax loolu ba métier da dañuy ñaan rek yàlla ko yàlla fayal boppam yàlla bu mu jëm kaw te lépp lu ci seytaan yàlla ko yàlla roccil boppam lu jàmm-jàmm ko gën lu waaye bëgg te amuloo jàmme li nga bëgg doo ko am ci àddina kontaan nañu alhamdulilah. Euh, kaddu yi nga xam ne fan yii Imaam Sall yëkkati woon na ko nga xam ne xaw na yëngal lii di umma islamique bi ak lii di chrétien yi ban kaddu nga si euh, sànni. waaw xam naa ndeysaan dafa dafa dafa juum rek ndeysaan baax la Imam Sall xam naa ko barka démb yàggul am na biro bu ñu daje ci réew mi benn bureau bu mag dama dugg ma leen si dugalee du ma dugg keroog ñu àndandoo duggandoo muy gaa am dafa juum rek waaye sunu mbokk chrétiens yi sunuy mbokk lan te añun ak ñoom amuñu benn problème jàmm rek la ñu seq kon seytaan seytaane fi jaaroon rek yàlla na ko yàlla fayal boppam. koor gi ñu dugg yàlla si seen koor yàlla leen yàlla may ñu eggale ak jàmm may ñaan ci barke mag ñi léeg-léeg nga dégg koor gi am ñu naan poussière beeg tàngoor wi am na loolu bu kenn bu leen kenn tooñ yàllaa yor poussière am moo koy indil boppam yàlla leen yàlla defal jàmm ci barke bay lay barke Baye